Supersonic's money transfer is giving you an unbeatable bonanza from now until the end of October. Yes! From now till the end of October, you stand a chance of winning a bag of rice when you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland with Supersonics money transfer. Amazing! So from now till the end of October, every time you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland, you stand a chance of winning a bag of rice. Only 100 bags available, so hurry now and be part of the 100 lucky winners in this special unbeatable bonanza from now until the end of October with Supersonics money transfer.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 loolu mooy lan diggante diggante nekk programme boo xam ne dafa jóg pour defar diggante yi. diggante dinañ waxtaanee nag si biir kër yi. diggante nit ki ak boromam. dinañ dem si biir office yi. diggante nit ki ak yonantu. dinañ génn réew mi. diggante nit ki sax ak moromam bàyyi daam am na ko tiit na lool ci diggante ak boromam mbaa du yàqu yi. diggante du fi yàqu dina ko defar fii. ndax nag réeroo amul daal.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 tabaarakallaahu ak julli yu bari ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nag nuyuwaat leen beneen yoon ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu am mbégte nag lool ci tey jotaay bi xaw a soppeeku soppeeku gi moo di tey dafa am benn tomb boo xam ne moom lañ na ma dugg pour waxtaan ci ak yéen dafa mel ni nag maa ubbi programme bi waaye am na koo xam ne moom mooy mooy mooy ci programme bi ndax moom mooy doxal tabaarakallaahu miin ngeen ko nag miin ngeen ko mu nekk jàmbaar yoo xam ne wax dëgg yàlla am na ñu ñuy wooye jigéen ñu man góor waaye moom boole naa ko ci groupe boobule euh, muy soxna ajaratu fatimatu sàmb ngeen gën ko miin ci faat sàmb ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar fa tabaarakallaahu di nuyu itam euh, kilifa kër gi pa Ousmane Diouf euh, foofee bitim réew di nuyu yaayam tabaarakallaahu sunu yaay ju baax joojule soxnaam ak sistaam ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak njabootam yëpp di nuyu itam Serigne Moussa mi nga xam ne moo ñu nekkal ci wàllu xarala gi wala ci wàllu yi waaye soxna soxna Ayda mi nekk ci wàllu xarala gi te nga xam ne moom wax dëgg dafa bokkoon si programme waaye dafa xaw a dawandi ko defee kon foofu laay tënk nuyoo bi rek daal di nuyu ajaratu Fatou maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Oustaz fay naa la di nuyu képp koo xam ne mu ngi seetaan di leen ne salaamaaleykum. Euh, waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu euh, tey nag dama bëgg nga nuyu nuyu nuyu nuyu bu xaw a ustaase tuuti nuyu bu saf ustaase tuuti waxal asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. voilà tey dama bëgg nuyu bi xaw a. xaw a saf ustaas Sukana. waaw kañ tabaarakalla yow moom su sunu sunu sunu sañse bi sax daa mel ni dañoo xaw a. waaw dañoo xaw a waxtaan ba mel ni ku laalante ko la. ah yow daal lii tax moo tax yàlla daal dogal na ngay sama xarit. jeex na. léegi tey moom euh, lu ñuy waxtaanee. oustaz euh, tey lu ma bëgg a ñu waxtaane dafa nekk waxtaan boo xam ne dafa yaatu. Mhm. dafa laal ñu baree bari. Mhm. rawatina nag euh, ñi nga xam ne ñooy waa diaspora bi. Mhm. mu nekk jëkkër ak jabar joo xam ne. Eh, jikat ji mu ngi si kaw jabar jang ci souf manam jikat ji mu ngi Europe bi waye jabar ji mu ngi Gambia oustaz mhm. loolu la bëgg a tey ñu waxtane ak lan la ci diine wax ak lan la ti di dunda gisuloo sa jikar waaw xam nga eh, Aja Fatou lu jar a la mhm. waye lego leg da ngay gis eh, ndeysaan nit ki doko wax ne duñ la waxal ndax ya sa bop ndax nit dana jum fogné fi la fekk du fofu Euh, sëy gu métti mooy façon sëy yooyu noonu maanaam sëy boo xam ne yaa ngi fii sa borom kër nga fële wala sa borom kër a ngi fii yaa nga fële ñaar yëpp dafay am dangay gis koo xam ne jëkkër ji moo nekk fii jabar ji nekk fële te li ci gën a yéeme moo di sëy la boo xam ne góor góorgóorlu dëgg bu fekkee mbëggeel la ñoon ci biir mbëggeel ga day dem ba jeex xam nga li koy dàq mm-hmm. parce que mbëggeel ak ñàkk confidence xajuñ ci benn néeg waaw bëggeel ak ñàkk kóolute hmm. ki nga bëgg boo ko bu la wóoluwut bu yàggee rek mbëggeel googu dafay daal di dàqu te sëy boo xam ne ñaar ñaar ñu soree ci ne su fekkee ne ñoom ñaar ñëpp góorgóorlu wuñ tàggat seen xel tàggat seen xol bu leen yàlla dimbalewul rek dañuy ñàkk woolu wante dootul amati te bu wante amatul dañuy dem ba mbëggeel googu dootul amati te gis nga xol yàlla bind ko pour mu nekk empty xam nga xam nga li ma bëgg a wax. Mm-hmm. maanaam déggoo nga dégg sax koo xam ne dafa am defet dafa defet ci mbëgeel man dañ ko dañ ko dañ ko gaañ ci mbëggeel. Mm-hmm. mu ne man dootuma bëgg dafa mer rek. ñu ne xol du oom dañ koy bës. waaw waaye des na ko dàmp. Mm-hmm. duñ ko bës waaye des na ko dàmp. waaw xam nga oom loxoo koy dàmp wala leneen. Mhm. waaye xol jëf ju neex ak wax ju neex moo koy dàmp. déggati naa dégg. moo tax olof léegi-léegi mu wax dara da ngay gis leneen lu ñëw xam nga olof a waxoon ne ba sama bopp ma la gënal. du bañ naa la du bañ naa la. Mhm. sama turandoo dafa dàq lool. mu ne moom daf ne. Mhm. Eh, bala ngaa nekk jullit pire li nga bëggal sa bopp. loolu ngay bëggal Moussa. ndeysaan moo tax nag eh, faatu jullit bari wut de. ndax léegoo léegi yow. danga may yéene kaani mhm. di màcc banaana di muut banaana te loolu du jikkoy jullit mhm. loolu moo tax euh, tey ñu indi leen waxtaan wi mbokk yi te xam naa ne dinañ ci am ay tomb yu bëri ndax am na ñu bari ñoo xam ne euh, yónnee nañ ma ay bataaxal yoo xam ne façon yu nu mel la mhm. façon naqar yu nu mel euh, gis nga faatu façon boobu xam nga benn maanaam cas bi ci gën a critique mooy ki nga xam ne nii kër këram dafa tukki yaa may dégg wala mm-hmm. dégg loolu borom këram dafa tukki ko ci kër mu ngi ci yaayam ak baayam mm-hmm. borom këram yàgg lool yàlla nattu boroom kër gi yaay xale bu góor bi tawat xale bu góor bi tawat mm-hmm. léegi borom kër gi wëlbatiku soxna woo maanaam jabaroo gorom parce que moo ko daan dootal ndoxum sangu moo ko daan jëkkal añam moo koy ba fi nekk nii ñoom ñaar seen bakkan not na leen te lii lay wax nii soxna si ko dund ci boppam moo ma tegal kaa bi. oustaz loolu dina am solo tey waxtaan bi nekk na waxtaan boo xam ne lu yaatu la euh, ñu ne euh, lu mu saf ku ko mocaa ko xam. léegi loolu. Mhm. lan moo ko indil soxna si jëkkëram daf ko sori. ndeysaan su ko jëkkëram soriwutoon konoon dana lu ba du dund loolu muy dund moo tax sëy bu métti la te nekkut sëy boo xam ne 100 percent wala mën nga xam ne 50 percent bi daanaka ànduñ ci ak lislaam ndax lislaam d'accordut loolu. lislaam li mu bëgg mooy nga dëkkal ko dëkkoo ko dundal ko woddu ko mhm. loolu lañ wax waaye société itam société bi ñuy dund léegi sax mu ngi tane waaye bu njëkk man mii nekk fii di góor góorgóorlu di daan doole di yéeg ak wàcc ci marché bi xëy ak gi dem ci tool yi su ma ñëwee jox la guru ba nga jël musaa mi wàcc ci flight bi ñëw Amérique benn nopp bi rasta tuuti bopp bi ñëwaat ne dafa bëggoon a indi guru yow même boo bëgg la bañ sax ñi la wër ñoo naan ñoo naan la nangul bu ñu xañ sunu teraanga maanaam sëy bi dañ ci dugal matière madda ba ëpp loolu moo ñu indi nañ ñi gaare ci guuta gi mm-hmm. lii yëpp liñ ci indi mooy sëyu intérêt Euh, suy intérêt dina ma neex yow mi nga xam ne yaay seetaan ndax yaa ngi ko dunda ndax dunduloo ko euh, yow mi nga xam ne yaay seetaan jamono ji euh, lan nga am si expérience su dee sa jëkkër nekku fi su dee sa jabar nekku fi oustaz wax na lu am solo nekkut ne góor ñi rek ñooy dunda lu métti maanaam baay fi seen i jabar waaye am na jabar yoo xam ne tamit ñu ngi bitim réew bàyyi fi seeni i jëkkër kon nag dineen wax technicien yi ñu bindal ñu number téléphone yi su ko defee dineen uyu call si su ko defee programme bi gën a mun a yaatu su ko defee yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di seetaan ngeen mun noo jox seen xam-xam oustaz mhm. ma laajte la tey soo doon takka jabar mhm. ah, jabar bu fi nekkut ak jabar bu fi nekk ban ngay jël waaw loolu moom man mën naa la jox misaal sama bopp mhm. man lu bëri dañ ma koy laaj xam nga ci ñun ñun ci li ñuy yëngu ñu ci bëri dañ ciy gis sax ñoo xam ne dañ naa naan doo ma dimbale ci jëkkër jabar ju nekk bitim réew maanaam comme mën laa dimbale ma nangam yalla may na ma xam yu bari ci biti rew mi mhm. waye soxna su nek bitim rew man mhm. mako ñewante parce que dama yëram soxna si bu mu hmm xam nga li tax dama yëram soxna si benn dana ma namm du ma du ma mën gis ben ma nam ko du ma ko gis hmm hmm te kay mo xal la xam nga ne namelu ñaar ñi yalla boole ci néegu sëy dafa indi febar dana indi febaru xel dana indi febaru beut dana indi feebaru ndigg dana indi feebaru tànk bu ma la ko doon limbal mën naa dem ba fukki feebar ak ñett yoo xam ne nameelu ñaar ñi yàlla boole te kenn ku ci nekk di góorgóorlu di maandu laa wax mm-hmm. xam nga loolu itam seen solo mm-hmm. man kon li ma lay wax mooy boo ma tegaloon ñaar mm. soxna si nga xam ne da ngay mën a dëkk moom ki a dëkk ak moom mm-hmm. damay jël ki ma mën a dëkkal moo la gënal non man loolu laay def sax moo ma gënal xam nga ki kooku di nga mën a gis jaaga jaagareem di nga mën a gis lu bari ba pare di nga ko mën a miin waaye oustaz tamit ah, fooguloo tamit ah, si wàllu wérgu yaram dina baax lool sa jëkkër sori la ah bu dee na la si at bi oo ñaar si at bi nga gisanteeg moom loolu tam dafaa wàccee stress parce que every day di togg a lekka di yekka di jox góor bi dafa miiti. faatu hmm. xam nga yow. fi nga fi nga fi nga fi nga fi nga teg sa tànk noonu. Hmm. boo fa continuer dangay mbarastu ko xam bu fekkee ne togg yàq mooy stress loo nit. Mhm. liggéeyu bitim réew moo gën a métti togg yàq. waaw waaye moom mu ngi foofu yow yaa ngi fii yow liggéey bi ngay def fii moo gën a métti togg yàq. Mhm. te sëy booy dem itam ñaan nga yàlla am ci njaboot njaboot moo gën a mën a jox nit stress te ñaanoo yàlla sori sa jëkkër ba pare sori sa njaboot maanaam àdduna moom la yàlla bind bindut ñu ak noflaay. su fekkee ne da nga foog ne nit ki su ko jëkkëram soree. foofu lay gën a am stress bu fekkee bëgg jëkkëram gi dëgg la parce que jëkkër mooy wéttal mooy wéttalu jabar jabaram mm-hmm. yàlla boo demee ci alxuraan dafa wax ni daf ñu bind góor ak jigéen kii doon soxnaam ngir soxna si dalee li eh, góor gi dalee ci soxnaam soxna si dalee li taskunoo ilayha maanaam góor gi dalee ci soxnaam nga am stress ci biti ñëw ci sa soxna li li li firnde ji mooy sunu sang bi sama turandoo kera bi mu gisee lu mos ta gis dégg mhm. li mu mos a dégg. Mhm. su ma waxee sama turandoo del wax salaahu alayhi wa ci weeram lañ ñaan. Eh, bi mu gisee lu mos a gis. Mhm. dégg lu mos a dégg. keroog bi mu ñëwee soxnaam moo ko defal ku fa soxnaam nekkutoon nu muy demee. day garaaw. bu fekkoon soxna si dafa tukki nu muy demee. dafay métti. moo tax soxna soosu dafa nekk exemple ci jigéen ñëpp. ndax kii mu ngi ko fekk mu ngi liggéey nekk ci leewul yu kawe yi. waaw waaye oustaz dogguma la de. waye di nga gis eh, yena moments yo xamne amna yena goor yo xamne ñu ngi dekk ak seen jigéen ci biir kër fi ci biir dekk bi di Gambia du nebu ñep ba di nga gis ne amna na yo xamne ne nekkul di dunda bànneexi sëy duñ gis goor suba duñ gis góor becek, duñ gis goor ngoon toga añ bi ba yeka def yep goor ba do ko gis oustad lolu dara gënut ko ma ñaka am jëkkër jooju sax moom a gën a waaw domaine la gis nga koku soko ko mu ne bitim rewit su fi ñëwee do ko gis xam nga amna ño xamne dañuy bay fi seen jabar nekk bitim réew suñ ñëwee fii nii benn fan xaj na sax ci half night la ñuy fanaan ak seen jabar li ci des yëpp ci night club bi la ñuy nekk wala nekk ci nangam yi. astafurlah ustaz ci nangam xanaa kon jigéen bi dafa mënut booram. waaw kon xanaa ki ki dëkk ak jëkkëram jëkkër ji du ko gis kon xanaa kooku mënut booram. Ah, la kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan mën nga ñëw ko si bi. xam nga affaire bi ah, ustaz ñu mm-hmm. jox jox gars yi number bi. 7949. Mm-hmm. Ah, 214 7949 214 7949 214 mooy number bi soo leen bëggee wax ak oustaz Al Mansouri rek ah, mu ngi fii si biir kër bi dina gën a waxtaan ak yéen oustaz lii neex na ba noppi de. waaw xam nga tey. Hmm. Eh, su fekkee ne da nga bëgg a foofu nga ko bëgg a hmm. gis nga dama lay delloowaat ci ne la. Hmm. tànn bi daf ci am solo. tànn bi tànn waaw. kon maanaam da nga war a tànn sa soxna. tànn sa soxna tey man. man eh, man suma fos jabar suma aaw mhm. bi ma koy am mhm. boobu ndoo bu ndaw laa maa ngi ci daara ji mhm, waaye ba tey jii nii su su fekkee ne comme maa ngi amee njàpp ma waatal la ko tey laa ko gën a nopp mënu maa gis jigéen ju ma ko gën a noppal macha allah macha allah te bi ma koy ut ci àll balaa laa ne kenn xamuma ndeysaan tey nga dem ba ay mboolooy mboolooy mboolooy di la tub te ñi ci ay xale lañ ay jongama ay nanga waaye kenn mënta taa maanaam tànn bi daf ci am solo léegi naka ngay tànnee soxna ay waay waay waay ubbi leen seen noppa yi ngeen seetaan lii déglu ko xale yi laa wax seetaan leen lii oustaz ak ñoo yóbbu turu. xam nga tey. Hmm. boo ma laajee nu ñuy tànnee soxna. waaw bu ma paree man ñeme naa laa delloo ne la nu ñuy tànnee jëkkër. jëkkër waaw dinañ fa dem léegi nañ dem si nu ñuy tànnee soxna. ni ñuy ni ñuy tànnee soxna. Ah. mooy nanga nga ut koo xam ne kuñ yar la. ndeysaan. xam nga kuñ yar rek am na ñu ko yar. Mm-hmm. loolu la olof doon wax naan jabar goro kuñ yar. Mm-hmm. am na ñu ko yar. ndeysaan waaye koo xam ne mbedd mee ko yar. Mm. boo ko jëlee bët bu set mbedd mi atte leen. ndeysaan. ko xam ne mbedd mi moo ko ñoom moo ko yar. Mm-hmm. gis nga yar bi dañuy wax diine ji dañuy def nag mais yar bi boo amee kuñ yar dafa am lu muy rus. ndeysaan. ba pare du la wax lu mu gëmul bu la bëgg daf naa la bëgguma la nga se góor nag bu mu tay teelu mm-hmm. di takk jigéen ju ko bëggul jigéen ju ko bëggul baaxul. xam nga góor ñaa ngi eh, am na kaa ma la wax léegi góor ñaa ngi liggéey jigéen pour takk ko baaxul. ku ko mhm. def ku nekk dafa mel ni nga jël jigéen doroge ko pour ne ko maanaam tuuti kon mu xaw a ah, bokk atteeg réeb jigéen. maanaam yaa war góor bi jigéen ji daf la war a nopp not da nga ko war a forcer mu nopp la. déedéet te boo ko liggéeyee dafa mel ni da nga ko forcer mu nopp la. ndeysaan te liggéey boobu dafay mujj toj bés bu tojee. Mhm. seen sëy moom jeex na jigéen ji nag day loru parce que day gaare. ndeysaan xam nga li tax. Mhm. jël nga ndawam nangam nangam nangam man amana na ko nangoo fase da ko fay garé hmm. xam nga ne am na fii nii ñoo xam ne dañ takk beneen jabar seen jabaru njëkk yi joxatuñ len ayé ndeysaan ñaaw na Mune ma mune ma mune ma fukki atangi ni ak ben ci la am wuji dépense nak bët bu seet mu ñëw waaye amatuma ayé fukki at ak ben ñaaw na léegi xam nga koku jigen ji mo loru fi hmm. waye ben borom xam-xam dafa wax né moy tundiko len ak jigen parce que jigéen dafa mel ni dañ ko dañ ko dénk góor léegi ki ñu la dénk nag. Mhm. nga di ko toroxal. Mhm. dafay jël àtteeb jigéen ja tëjoon muus ma bañ ko jox mu lekk bañ koo bàyyi mu dem lekki. Mhm. xam nga jigéen jooju nu ji. jigéen benn jigéen sama turandoo moo ko doon nettali saa sallallahu mu ne benn jigéen a ngi nii waxal ne nag taraay naa oustaz waaw jàmbaar nga jàmbaar nga ah sallallahu alayhi wa sallam te xam nga lu wax mm. man ndax xam ngeen ku nay yow kuy nay ku ku nay kan la kan mooy ku nay. ku nay hmm. ku nay de day mel ni Abdou Ndiaye. Abdou Ndiaye ak Assane Ndiaye suma broda yi man na gis naa fii fii ci studio bi ku nay ah ñu nay waaw ku nay waaw si place bi fii num tudd num tudd Aïda ak Moussa Aïda ak Moussa sama turandoo nee na ku ku dégg sama tur te julli woo ci man ah. ah xañ na ñu ngi julli ci moom ci xol ah nee na kooku mooy ku nay kon dee na <laughs> ku dégg ñu ne Mouhamad rek ah. jullil ci moom sallallahu alayhi wa sallam nay boobu du ñàkk joxe xaalis de léegi mu ne dafa am benn jigéen mm. dafa jël muus mi ci kër gi tëj ko ci kër gi bañ koo jox mu lekk bañ ko bàyyi mu dem lekki maanaam pour ki nga xam ne mu ngi takk jigéen ji sëyul ak moom ci xàq yi sariya wax ba pare fasewu ko xam nga suñ aada suñ culture dañ ragal ah, fase te alxuraan am na suratu tala tala am na saar bu tudd passé am na sëy yoo xam ne junne yoon laa yoo la hundred percent de junne yoon tàggoo moo gën waaye ñun dañ naan yi tàggoo ku tàggoo ñu gaafal la mm-hmm. te Seyda Khadija Seydina Muhammad wax ma ne ndax dafa tàggoo mais Seydina Muhammad mooy ñetteelu jëkkëram mais ku nekk xam na ne mooy jëkkër jëggan ci moom bu génnutoon ci yéele ñëlee génnu ñoon àdduna kon du am ku baax ki léegi mu mu toroxal muus mi waaye ku mën a julli la soxna si ku mën a julli mën a woor mën a saraxe léegi suma turandoo ne jigéen ji ak julli mag léppam safara la jëm xam nga lu tax mhm. dafa toroxal muus mhm. léegi kon ki amee jigéen ci këram jigen ji manat ken man tu ko tak ndax mu ci buum. Mm-hmm. ah mm-hmm. legi nak nga di ko toroxal di def lula neex yow nan ko man góor la su ma tak ben ba ñaar ba ñett ba ñent di laye sharia te yow sa sharia yep mo ci tak ay jabar nako ko metina euh oustaz di nga gis tamit euh, ndaw bo xamne mu ngi ci bir euh, nek fofu nono di gurgulu, euh, nga tok rek am sa gor bo xamne ne ak mom Euh, mu tollu ay ñetti at ñeneenti at gisuloo ko mënut a ñëw Gambie te mu ngi am kayit loolu war na na warut. mu ngi am kayit. waa xam nga moom laa wax léegi ne am na sëy yoo xam ne xam nga. Euh, soriwuma sax ci ni ñu tànnee jabar mën nañ ko mottaliwaat mm-hmm. waaye nee la am na loo xam ne jigéen ji moo koy nangu man la ma ci la ma ciy advice nit toujours dama lay wax ne la soo ñëwee su jëkkër de mën naa ñëw waaye nangu te ñëw am na fa beneen jabar wala am na fa nangam ma ne la yow yaa amee sa cëgal guy du lislaam soo ma nee toog muñ maandu islam ne la continuer soo manta toog muñ maandu ñaanal baat nga génn ci sëy bi nga dem uti beneen njëkk dafa nekk problème euh, góor ji ñëwut euh, let's say four years mhm. ñëwut islam may na la yow jigéen ji nga def na naka sudut noonu maanaam nga njaalo déedéet mayu la nga njaalo islam li mu la mooy mooy nga génn ci sëy bi su kooku bañee kaadi yaa ngi fi su kooku bañee kaadi yaa ngi fi looloo tax ñu nekk fi soo demee ci kaadi yi ñoom danañ la jaarale ci yoonu sariya wu set wicc nga tas sëy bi dem sëy kaadi yi loolu lañ fi liggéey maanaam du loo rek waaye seen liggéey loolu bokk na ci su fekkee ne góor. Mm-hmm. dafa la bañ a may baat ta war laa may may baat. Mm-hmm. kaadi yi dañuy tas sëy bi. 7949214 7949214 ah, mooy number bi 7949 214 mooy number bi call leen ñu ngeen waxtaan ak oustaz Almansory oustaz du ñàkk nga riidaale sa message yi waaw waaw waaw euh, euh, mhm. ndeysaan am na ñoo xam Lion Boy Lion ñu ngi lay nuyu bu baax moom mu nga Dubaay ndeysaan waaw ñu ngi koy nuyu bu baax a gis nga comment na fi lu bari mhm. Mour Diop tam mu nga Spain ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Samsudine Sagnang mu nga ba France Mariama Diallo moom mu ngi fii nii ñu ngi koy nuyu bu baax a gis Modou Penda mu ngi Euh, Mahmoud Cissé moom mu ngi fii bu Bundung Bohol ñu ngi koy nuyu séeri ami tabarakallahu euh, ñooñu la Adja Ndeye Ramou moom mu ngi ñuy seetaanee ba Amérique ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziyaara baax da nga waxoon benn laaj mooy nu ñuy tànnee soxna mm-hmm. te dinaa la delloowaat ci lu ñuy tànn yow te laa la laaj nu ñuy tànnee jëkkër mm-hmm. xam nga ñu bare bëri seen problème foofu la xam nga wax na wax naa la fii léegi léegi ne mm-hmm. olof yi dañu wax ne euh, olof dañuy wax léegi loo xam ne njuumte la waaw xam nga da ngay dégg la garab bu la sutu du la may ker. waaw. léegoo-léeg nga dem yaakaar garab ni gii moo may may ker nga dem ca ron xob yi ruus nooy def. dellu. ah mbaa mbaa naaj ray la. Mm-hmm. maanaam euh, euh, dañoo wax ne xalbul fataati ajallu min an yushtara bil maali. laakin bil mahabbati yujtaba euh, léegi ñu ne waaw lii lan la nit ñi ne lii de xolu xale bu jigéen la waxuñ bu góor de. ñu na ah xaalibul fataati moom moom moom lu mu xewle ni ñu ne moom lay jaay nii yi mhm. xale bu jigéen bi de xolam bi lay jaay ci marché bi ni ay ay wa ay wa xol ay wa mhm. ñëw fay two hundred thousand ñii fay euh, téeméer junne ñii fay nangam ñu ne déedéet benn mhm. góor oo ko ne ko xalbul fataati ajallu min an yustara bil maali sa xol bi bul ko jaayee xaalis lakin bil mahabbati jaayee ko mbëggeel yuj taba bil mahabbati yuj taba jaayee ko mbëggeel moo tax yàlla ne euh, dama def mawadda wa ma mhm. gis nga boo boo amee ku am yar ba pare kuñ yar yar nag diine ngi ci ida ida ataakum man tardawna diinahu boo amee ku yaru ba pare xam nga li ci teg mhm. amal ku la bëgg nit dana yaru ba nepp nag wax dëgg yàlla am na fi ñu baax ñoo xam ne yaru nañ yiw nañ seel nañ waaye boo leen bëggoon a may almansori ñu ne la nopp ma ko mhm. am nañ ci raay léegi almansori nag ndax day jël xalimbaam ne xaaram ba xalimba leen su boobaa moom mu ngi dugal njaboot gi muy si ci ñooñu kaay ma xala benn secret gis nga njaboot gu juddoo ci sëyu sëriñ sëriñtu njaboot googu seen boo xoolee seen système 95 euh, pour cent yëpp féel la. ca njàng ma ca bu ñu waree am liggéey ca bu ñuy wax ca bu maanaam dañuy faral di bëri lu ñuy féel. ndax loolu. Mhm. liggéey bu bu fekkee lu jàpp la dafay maanaam rab daf ciy wàll si rab. Mhm. motax ñu bari bari ga dégg dama am faru rab dama am nangam dama am nangam nañ laaj ba xam sehru bi sayyidna Muhammad aaye won dugg ci te benn goor dafa wax ne boy dem wo boy dem wo di wajal na nga na nga julli julli istikhara ñaar yoon mu wala wala benn yoon waye boy dem boy waji duggu ci néegu sey pour tan na nga istikhara ñaar yoon ba ñett jël len sen pen téré oustaz lumay wa amna solo manam mag ni dañuy seet jikko ba pare euh, borom xam-xam ñi jël tur tour yi. dafa melni oustaz den am koola si line bi euh, dinen def ni rek euh, jël koola bobu nonu waxtaan ak mom fi ci Gambian talent TV di len remind rek assalamu alaykum ya wa alaykum salaam oustaz ang la dega waaw man la Samsidine sanam France Oke Samsidine oustaz a uyu oustaz waxal samsudin. Samsidine Samsidine nga def waaw maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay Sadia. maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay nuyu oustaz Mohamed Lamine suma sëriñ suma xarit. jërëjëf Sadia. waaw Samsudin wàññil ya, sa. maa ngi rafetlu seen. wàññil sa waaw maa ngi rafetlu seen programme bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf. jërëjëf samsudin. waaw kan? seen programme bi amna so pro pro pro pro bu baax baax. wa legi legi xam nga man li ma la bëgg laaj. aha ndax bu nga Fatou mu continuer ci programme bi ak Aida wala. kan. Fatou mi Fatou mi nga xam ne motax programme bi neex. waaw. bu nga mu continuer ci. lan mu continuer ni programme bi ni wa mu continuer ci waaw waaw waaw baax trop baax trop parce que daf ñuy ee eh, daf ñuy ee eh, ñun ñu ah, nekk ci biti parce que cas yi dafa bëri trop dëgg la wa wa wa Samsudin naam yow yaa ngi France waaw maa ngi France ana soxna si soxna si mu ngi Gambia foofu yow yaa moom thème bi yow yaa moom topic bi mbaa yaa ngi waaj may waj bu baax a baax a lulu. parce que moo ma sax dila wax lolu wajal wala nga wajal ko. waaw parce que lutax ma gëna e eh, man degala. hmm nit man dama dan dega ci benn mak mune nit goor da ngay ut ki nga xamne ne da nga fexé ut jabar bu la buga. Mhm. waaye yow góor gi soo buggee te jigéen bi bugul la loolu coono la toujours dama koy si sa biir waa. dëgg la dëgg coono bu rëy la. Wow, léegi ba pare man dëgg dega expérience ma woon affaire bi waaye ñëw naa ba gis fii li nga xam ne daal dafa xaw a tiit daf ma xaw a tiital. ndeysaan mooy lan. mooy ne di nga takk jigéen andi ko fii mu ñëw ba xam loi fii parce que fii dañ jox jigéen ni loi doole trop. léegi su ñëwee ba jàng seen loi ba xam ko léegi nag yow góor gi mun ñoo dem jekki jekki benn bés ñu jéene la ci biti hmm? waaw léegi léegi nga takka jabar nga bàyyi ko gambia mu ngi def lu war lu lii yëpp dina la defal li nga buga li nga ko wax dina ko def hmm. waaye soo ko àndee fii soo demee ba mu xam dëkk mu miin rek commencé am tuuti rek mu football la si biti mu dem ànd ak beneen góor bu nga xam hmm. yow fii nga ko fekk fii la la fekk xamante nga ak moom sa xol di daga parce que man waxuma len man suma soxna def ma waaye gis na ka yu mel noonu fi motax dal metti na trop si ñun kat yi mm-hmm. metti na trop trop trop trop wa wa li li ngeen di def ni gis na yeen ak ñuy e di ñu won yoon bi tamit daf ci baax trop du ñepp nak du ñepp nak de mm-hmm. wa amna ñi nga xamne so konté jigen ñi hundred percent mu na la seventy five percent bi yeb dañ dee victoire sen goor yi mm-hmm ah loolu de yéeme nah. waaw loolu de doy na waar loolu it beneen kii la de beneen kaa am na ñeneen ñi tamit di nga leen bàyyi foofu noonu ñu interest moo tax ñu dugg si yow hmm. di nga toog out jabar foo laal duñ la nangoo may waaye tey ñun xuus nañ si gaale bi ak fii tey fu ma joxoon dinañ ne waaw waa ji mu ngi nii waaye bu njëkk bi moo fa nekkoon de nangu mënuma am fa boobu. dégg lool loolu mhm. waaw dégg nga mhm. ah, ku ma takka moom kooku moom man fu ma koy expliqué ak fu ma demee takka nekkul benn suma famille man noonu laa mel. Ah, moo naa ba takku waaye yow yow sa soxna moom xam naa ko ku baax la ku baax la. waaw yow moom loo moom xam naa loolu xam nga sama soxna bu baax yal yàlla saxal jàmm seen diggante amin amin amin waaye gaawam ñëw wala nga waajal ko mu ñëw moom moom bu ñëwee foofu du la génn insha allah insha allah non moom kay ñoom moom dina ñëw gëm naa loolu moom insha allah yow moom suma gaayan <laughs> du tey yàgg na insha allah insha allah jërëjëf kontaan nañ ci kool bi kay waaw baax na nul ma soxna soosu nga dëndeel nga wax ko ne programme bi kay pour nga ànd ak moom dina ma ne parce que correction bi baax na lu muy laaj tam lu interesting la tamit. alhamdulilah macha allah jërëjëf. kontaan nañu alhamdulilah kontaan nañu yàlla yàlla xeeb dolli. amiin bi jaay rasulallah amiin amiin. jërëjëf Samsudeen. Oustaz euh, moom waxam bi nag am na solo bu baax a baax xam naa ne calls yu bari ñu ngi dugga mhm. euh, dineen mujj di uyu calls rek euh, si sun studio number bi si 7949 214 7949 214 yéen yi na tax ñu toog fi. so saay boo leen ñu inalee anything loolu leen a ñu waxtaanee dinañ si sawar lool euh, kon nag euh, soo leen koolee rek loolu dina am solo mm-hmm. waaye oustaz wax na lu am solo euh, yóbbu jigéen soo déggee tey ñu def topic bi mm-hmm. jabar bi mu sori la oo jëkkër bi mu sori la waaye yóbbu ko mm-hmm. mooy di whole aim nga yóbbu jigéen bu pare mu génn la oustaz loolu doy na waa li ma la waxoon am na ko am koola hello koola <coughs> <coughs> hello Kola. wala dafa mel ni dafa dog de wala waaw dafa mel ni dafa dog Ceesay Kounda la si program bi sponsor istar start duga si waaw waaw su duga si su ko defee ma mun ko sponsor dan danañ sponsor insha allah ok li li li li ma la waxoon sànq nii ne ut kunyar, gis nga kunyar. yar c'est ça ñu jëlaat koola bi ok hello Waalaikum salam. sama ma laa nuyu. maa ngi lay fay. Oustaz na nga def. maa ngi sant suñu borom bu baax kooku kan la. ah maa ngi tudd Abdou. Abdou fooy wootee ni Abdou. maa ngi wootee Jamani. Jamani. waaw. waaw Abdou Aziz wala Abdourahman wala Rahim. Abdallah Abdallah macha allah bismillah yaa ngi ci biir programme bi yow eh, Abdallah yaa ngi am soxna wala amagoo. man amaanguma. foo bugg takkee fii wala foofu jamono. non Gambie foofu laa bugg takkee boot ah, dama am problème ak suma ku ma war a takka. Oh, oh, oh, lu tax. non because man maa fii aw ma understand nga. Mm-hmm. ok dama ko bëgg a tag balaa maa ñëw fii astafurlah balaa maa ñëw mhm. so bu ma ñëwee bu ma ñëwee ba fii afta suma kayit bi maa nga dama dugal kayit suma kayit bi génnut. Mhm. waaw. waaw ba pare ma kool jigéen bi. Mhm. ma explain ko ko. mu ne ma ne ko ne man aw ma kayit dama la bëgg a takk de bon aw kayit understand nga ma ne ko waxtaan naa suma waajur yi ñu ne ma ne nga am kayit. nga ñëw nga ñëw waaw bon jigen bi luma mu ne mané mom suma ko takkutee daf ma liggéey dama dof yama dega waaw ñu la dega bu baax baax. oké mu ne mané mu ne daf ma liggéey mu ne daf ma liggéey dama dof ak luma ne ko di uti fii yëpp ko am. lé léegi mom dafa bëgg nga takko yow da nga bëgg xaar. non man dama ko bëgg dama ko bëgg a tagga dama ko bëgg a tagga dégg nga dégg nga ba xam nga yaaga nañ tamit man man ak moom ñu ngi xam nga den xamante mun juróomi at ñu ngi xam ñu ngi dema ñu ngi génn man ak moom waa léegi léegi ah, Abdou hmm. man wax bi des na maa leer de moom moom mu ne soo ko takku daf lay liggéey mu ne su ko takku dee def maa liggéey def maa liggéey ma dof daf ah, maa liggéey ko bëgg takk ma takkal rek xam nga Abdou Usta ya mala de mala de mané mom comme dafa bëgg nga takku ko té yow ya, it da nga ko bëgg takk dama ko bëgg a takk waaw ah kon lan mo leen bolé non suma anga la la man dama ko bëgg suma waji anga suma waji suma waajur seen wax bi mun ma koo mun ma koo lifin tamit anga mun ma koo ma dem def lo xamné ne suma waajur bëgguñ understand sa waajur ñoom dañ bëgg nga takk kenen déedéet bëgguy ma takk kenn ñu né man né comme ki soko takké takkee anga yow amuloo kayit yow amulo kañ ngay ñëw nga bàyyi doomi jàmbur fii tamit mu ñëw def loolu ak loolu tamit xam nga baakaar bi baakaar boobu yow yaa ko amee ana sànga so moo tax mhm. léegi yéen waxtaan ngeen parce que yow suma sista nga waxtaan naa ak moom waxtaan naa moom dama waxtaan ak kooku kon léegi mu ne xam nga mu ne su ma takkee kenn def maa loolu rek bés ma de su ma tëddee su ma tëddee sax su ma sax dama ko danga su ma xel bi si moom <laughs> lan sa solution lan nga fa mooy solution bi. non moom laajte na ko lolou yeb la naa laaj na ko lolou yeb on nga mom mom lum lum fum mu rek lolou la bu doy mu ne moom suma ko takkutee daf maa liggéey daf maa dama daf ma liggéey lolou rek lolou rek mo rek mo nekk si so yang ko topato yang ko mo koo yang ko yone yang ko yang ko topato ni nga ko wara topato dama ko doy dama ko doy dama ko doy yone xaalis dama ko doy yone xaalis trayal loo ko anytime ku mom tam tukki mu ñew ci sa bor oustaz burle de oustaz burle nga jàppale suñu nga nga waxtaan ak jaaxle jigéen yi tam ñu muñ on sanga wa wa wa no mais mais eh, abdullah naam xam nga pour ñu xam na ne pour ñu am solution waaw dana nit waxtaan bu bokk tak bu télé bi waaye légui limu bëgg moy hmm dafa melni problème bi du ci yow du ci xalé bu jigéen bi ci parents yi la Mm-hmm. parce que su fekkee moom bugg na moom nangu na nga takk ko mu toog moom bu fekkee nangu na loolu boobu moom yoonu lislaam ñëw bu ko te dina nangoo muñ. waaye yow la bëgg laaj islam da la la wasi loolu islam da islam da la la wasi loolu nga takka nit ba pare nga bàyyi ko foofu maybe five years doo ñëw la la wasi loolu déedéet fekkee ne moom nangu na ko te mën na koo muñ yoonu lislaam newu ci islam kañ ay moom bu fekkee ne lislaam la ñuy seet ay weer lañ lay may ne la soxna si lii nanga bi weer suñ la ko mayee nga mën koo muñal sa jëkkër man nga ko nga waaw te loolu Seydina Omar moom mu jigéen ne lool parce que daf daan yónnee soldaar yi ñiy dem di xare ji am na ci benn bés muy doxantu ci mbedd mi gis benn dégg benn jigéen buy woy bi di di ñaxtu di ñaxtu naan suma ma ragalutoon yàlla wax dëgg yàlla am ponkal ci mbedd mi moo xam ne moom mooy wéttali ci sama néeg loolu tawuma Seydina Omar xam ne lii doxatut fu nekk nii mu laaj doom bu jigéen jigéen ñaata weer la mën a muñ ñaata at la mën a muñal jëkkëram tey fi nekk ni li li li lislaam mayee naam lislaam lim tëral ne loolu la jigéen war a xaar ni ñi faaleetuñ loolu fi ne nii da ngay da ngay gis koo xam ne day toog fukki at di xaar jëkkëram balaa jëkkër ji ñëw màggat jëkkër ji ñëwaat utaat beneen jabar teg ko ci kaw mu mu doon koo xam ne moom addunaam laay fam yàqu na ah laay fam yëpp dafa toog xaar li fi mu war a enjoy ne jëkkëram jëkkëram indi beneen xale bu ndaw waaye Abdallah waaw ah, comme que yow mënuloo ñëw Gambia trial nga xale bu jigéen bi moom it mu ñëw fekk si la yeah man loolu yëpp bëgg naa ko try pour mu ñëw understand nga bëgg naa ko try maybe loolu laay ñëw def sax xam nga man naa sacrifice léegi ma lifin ma ma yooni guru gaa yi takk ko mujjee mujjee waaye nga takk ko tamit bàyyi ko fii yow mbaa yaa ngi mbaandu nga ne ma ne yow ndax yow da nga mën a màndu loolu noonu comme la yéen a ngi date five years yaa ngi ko bàyyi Gambia moom mu ngi yow soo ko takkee ndax moom jigéen bi dina mën a toog mu xaaraat another year bi nga am sa kayit ak yooyu noonu ndax yow di nga mën a màndu loolu moom it dina mën a màndu loolu mbaa loolu du gën a indi problème si sëy bi comme xam nga ñeneen dañ de wane jigéen mun na moo muñ waaye góor di mun a muñ Fatou si man du problème moom si moom mooy si moo am man du problème on a pour lifin ko ko foofu noonu loolu du problème you mm-hmm. man lu ma dee loolu rek ma dee kii loolu ma dama ko oustaz comme dinaa la dinaa la ree dinaa la def fii la dofloo dinaa la hanga non euh, euh, c'est Abdallah Abdallah xam nga ni ngay def waaw jëlal suma nombre bi du la dofloo du la du la dara du la daal bu soobee yàlla jëlal suma nombre bi seven nine two two zero two one mu ngi am whatsapp bu maanaam seven nine two seven nine two two zero two one dina la ko bindal legi si comment bi. waaw danañ ko bind ci Facebook bi. ok ok ok. waaw su ko defee kenn waalaat na ma bi 79. 220. 20. 21. ok ok. waaw jërëjëf. xam nga nag lii tam kenn mënu ko mësu ma bàyyi la def nangam. loola wóorul sax nga takk borom wax dëgg yàlla parce que ndax bu la def nangam. ah, euh, ah oustaz. ah, ah takkama takkama bu du nga takkama te sa yàlla ma loolu la woykat wax. ah oustaz ah, waaye tam wax dëgg yàlla Abdoulaye moom ñu ngi koo jaajëfal ah, di nga gis ne ah, sometimes nga takk ak nit naka la nga nekk ak nit nga bàyyi ko fii si biir dëkk bi oustaz dafa naxari jigéen bi toog ay years oo ay months mënuloo ko yónnee guru mënuloo def dara ba pare communicate loo waaye su dee moom communicate na ba pare still gars yi amul benn solution. xam nga Fatou. dafa compliqué. dafa waaw waaye foog ñu waxtaanee parce que gis nga tey. am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi leen takk bàyyi leen fi ñoom ñoo ne woon ngay takk ma rek boo taay boo ñëwee baax na mm-hmm. mais dem nañ ba ba yàgg ñi réccu loolu xam nga li tax mm-hmm. am nañ koola si laan bi oustaz fu nekk nii waaw gaa yaa ñu gën a soxla programme bi ñu ko dunda métti naa lañ jël kooku hello hello salaamaaleykum waaleykum salaam na nga def tur bu rafet bi yow la ah, kan maam Feret yaa da nga yokk baat bi tuuti rek ah. Mama sister recorder Bundung Bool. ok Bundung Bool you welcome to show bi ko moom. Mahmoud. naam Oustaz. naka nga def. kii mooy Seri Ami. ah Seri Ami waaw moom yàlla dafa dogal benn xol bi benn jigéen kese la ci nopp ci àdduna. macha allah Ami yéen a yàlla jubale. Mahmoud Cissé. amiin amiin amiin. waa ana Pape Ndaw nag. oustaz waa boor yëpp ñu naa seetaan alhamdulilah jërëjëf ñëpp ñëpp naa déglu sa taalibe yëpp naa déglu bi waaw jërëjëf kontaan naa ci yéen jërëjëf waaw jërëjëf man na ñaareel laa bëgg ñaareel ñaareel ñaareel man du ma ko dox Moussa dogal kii ñi mu ah, demal Moussa dogal gaaw kii moom eh, gis nga li ñuy wax nii. jabar jabar ji man man lay wëlbatiku seen ma message ci suuf. déedéet kenn waaw <laughs> alhamdulilah jërëjëf kontaan nañ ci yow nuyul ma Isaaxa eh, sama xarit boobu. tubaarakallah Seydi Aysatu ak ñoom Moussa ak El Hadj Dramé ñoom ñëpp maa ngi ñu ngi ci marché la euh, kon mën nañoo continuer waale ci waxtaan bi. waaw li ma doon wax léegi mooy ne. Mhm. maanaam Oustaz jërëjëf waay. Mhm. jërëjëf Mamoud am na fi ñu mhm. xam ne ñu koy nangu waaye ñu demee ci ñoom. parce que tey yow dañuy maanaam nit ñi la wër sax ñoo la bàyyi sa jëkkër am jàmm. da ngay gis am na ñoo xam ne danañ fuñ mën a dugg danañ fa dugg ba am nomba sa jëkkër fo ne ñu ngi lay natal nan la gis nga sa jabar mu ngi taxaw ak diw sangam sa jabar mu ngi barab yak sa jabar mu ngi manam dañuy yàq sa xel yàq sa xel maanaam léegi jigen ji mu ngi fi di muñ yow óolootoo toko soko ko koolee mënatu am jam, do wax ji dootul neex mm-hmm. oustaz euh, ñu fi am yena text message euh, dinañ ko riit mm-hmm. euh, ñoom ci program programme bi len bokk ki di Ñanko Seydi mom mine Gambia women a problem Uh, uh, hmm. de GT hmm. I will not advise anyone uh, to bring a woman in Europe hmm. if you are not having documents it's not a wise move ah kan nag eh, yéen ñi nga xam ne yéen a nekk Europe yéen a ñu gën a xam eh, mun ngeen a seen seen comments. ba tey ngeen xam nga li eh, Saliou mi wax mm-hmm. parce que maa ngi ma am na suma benn wóolore bu jigéen bu seetaan fii. Mm-hmm. maa ngi waxtaan ak magam bitim réew. Mm-hmm. maanaam jabari bitim réew la am jabar ji du Gambien. waaye dëgg-dëgg moom jafe-jafe bi gën a rëy ci àdduna mooy jabar jooju. maanaam koo xam ne bokku culture. bokk leen nu ngeen yaroo bokk leen nangam bokk leen nangam te yow nit ku ñuul nga moom muy nit ku weex mën naa am sax bu nekkee nit ku ñuul tam euh, jàpp ne ne moo la gën parce que moom fa mu juddoo ak yow fi nga juddee nga xam ne ñu ñu ci bëri dañ jàpp ne Afrique moom ay njaale lañ maanaam ay mala lañ africains yi mhm. su ko li kii wax tam maanaam waaye problème bi mooy pour am soxna man koo dimbale mu dem te bu demee itam yal na nekk kuñ yar parce que bu nekkee kuñ yar dana yem ci yow mi ko yóbbu waaye buñ ko yar tuuti ci bëri bëri sëy bi duy mujj yeen jigen yi nga xamé ne nasa ay seetaan euh, ndax sa su la Europe di nga ko génna euh, su dé do ko génna mën nga ñëw wax su dé dang ko génna di nga ñëw euh, oustaz li nekk na topic bo xamné dafa doy waar mm-hmm. nekk na lo xamné tamit ñuko dund fu nekk dafa bari xaar goor dafa yombut waye xaar jigéen tamit yombut waye ndax goor ñi yëpp ay mun a nga tok ay ñaari at sa jigen nga mandu xamna naa jigen yi mu nekk muñ xawma nak yow la moy si saxala wa xam nga mandu hmm. mandu faatu bu ko yàlla dimbalee nit ki am na ci ñoo moo wax naa la ko léegi dana danañuy toog mandu di muñ ba jëlee ci feebar feebar waaw mm-hmm. parce que ñàkk sëy baaxut sëy bu bëri baaxut waaye ñàkk sëy tam baaxut ci ki nga xam ne mos naa sëy léegi da ngay gis tam ñoo xam ne dañ koy dañuy toog di xaar ba jëlee ci feebaru bët wala feebaru ndigg wala feebaru tànk wala feebaru ndànk feebar yi muy joxe bëri na léegi xaar googu mandu googu danga gis koo xam ne moom mu ngi fii ak jabaram waaye mandu ñoom ñaar ñoo dëkk mm-hmm. dégg goo ba tey ku dugg ci toilette bi wax ko mm-hmm. mosoo dégg boobu. <laughs> ku dugg si toilette bi di wax kool. wax ah góor ñi na xam ne yéen nii seetaan. am na ci ñoo suñ ca ko ca kii ba la ñuy uyoo ji kool xam nga dama la jox benn bëgg a jox benn. ay oustaz oustaz li yëpp yoo xam nga ko. dama la bëgg a benn cas boo ne du ma ah. ma benn wóolare. Mhm. benn xale. Mhm. dama téye téléphone am loolu nag ca at yi la ci gannaaw dama téye téléphone am bi di ko fi ngi nii téléphone bi ma gis oustaz kan one oustaz kan two oustaz kan three oustaz kan four. Oustaz kan five number yëpp Oustaz Kane. yëpp. waaye benn du ci suma number. ah Oustaz boobu garaaw na. léegi ko ma abal ma ma kool waaye. Mm. ma ne ma kool am nga crédit mu ne waaw number bu ma kool jigéen mooy uy. number bu ma kool jigéen mooy ma ne ko saa waay. number yi nga def yëpp du du man. lu tax nit ñi xam nañ ne suma nit nga léegi lu tax nga def Oustaz Kane wan Oustaz mu ne ma number yëpp suma ay jànq lañ. waaw su koolee ku ci kool ci guddi gi damay teg téléphone bi nii ba soxna si gis ne oustaz kanay kool mu ne oustaz eh, sonal na ma su ma sëriñ koolati de xool ko rek léegi xaaral ma dem wax ak moom ci moto bi dugg ci moto bi waxtaan ba xolam seen su fekkee ba dafa war a dem su dee daa war a dem xam nga ni mu wax sëñ bi nee na daa am conférence wala daa am programme ca télé ba xaaral ma dem yóbbu <laughs> ndeke man maa ngi toj dëkk bi yëguma lu xew yëguloo ko ma ne ko waaye nii ngay yàqee sama der déedéet dinaa la boole mu ne ma dimbali ma ngir yàlla déedéet loo ma laaj ma fay waaye moom ma ne ko waaye léegi dindi lii moom sa wécc te nga bàyyi fi dem génne wax ma kan nga ci bëgg ma waxtaan soxna dem ñaani ko ñi ci des nga bàyyi leen ñu uti mm-hmm. léegi mu ne moom bu ma la waxee dëgg de seetal ma diw ndax suñ diggante baax na ma xool ma ne ko baax na trop takk ko mu war a takk diw moomu keneen ca ñoom dégg na day war a takk kooku jël paaka dem jigéen ca laa wax jigéen waaw wax ma jabarteen waaw jànq ba benn ci jànq yi benn si oustaz kan waaw waaw waaw dé leeralal boo waxee benn si oustaz kan gars yi dañu foog man la benn ca ñi amoon nombre oustaz kan waaw jël paaka ut paaka dem néegam de fekkut ko fa fekk wa toog na suma kër bis bi war a takk toog na ba ñaari waxtu mhm. kooku ne bu ko gisee dana ko rey déedéet kañ comme li kii doon wax léegi nii lii dafa xew si dëkk bi bu ko fi bàyyee takk keneen dana ko rey. ndeysaan. ndax moo ko ko digoon parce que xam nga tam ni ñu leen fi ñu leen di mën a jàppee toujours xale yi jigéen ñi fi leen góor xale yu góor a mooy dama am ci ay projet dama nekk la bëgg a takk ñu ci bëri bu ñu naan dama la bëgg a takk waajuñ sax am na keneen kuñ bëgg a takk koo xam ne mooy seen wurusu ngalam. ndeysaan kooku ngelaw du ko ëpp. Mm-hmm. waaye yow moom morso foobee rek kaay rek la ñu suñ ñaqee rek pompe la. ndeysaan suñ paree sànni. Mm-hmm. loolu nag jigéen ñi ñoo ci war a yeewu. Mm-hmm. amul day nekk fii maandu nekk fële maandu moo tax nga gis ñoo bu ñu nekkee fële dañuy rayante pour yóbbu seen jabar parce que dañ sonn dañuy maandu. Mm-hmm. dañuy maandu lu ne dañ ci dugg. Mm-hmm. Euh, ñi nekk fii itam seen jëkkër nekk fële ñu maandu lu ne dañ ci dugg danañ dem ci pharmacie bi ñuy jox leen ay pion ñu naan parce que seen biir a ngi métti seen naq a ngi métti waaye ñi nga toog rek jàpp ci yàlla muñ. ndeysaan waaye ki nga ki maanduwul. Mm-hmm. yàlla jëkkër ji ñëw day kool waa ji ne ko may mu tuuti saa waaye yi dana dellu su waa ji jàllee ob bi mu ne ko ñëwaaleel ba mu ñëw parce que ñàkk mun laa la wax doon nañ la yar boo amee ku yar rek noppal mhm. yar am na si solo oustaz euh, waaye ñun tànneetuñ yar mhm. ñun taay la ñuy tànnee ak tey mhm. si ay rafet gis nga xale bi eh, na waaw yaa ngi dugal sa bopp ci tooxi dul ba xoolal ma bëtam yi xoolal ma kii bu la xoolee nga daanu kii mooy waaye fekk bëtam yooyu ah. moo lay xoqatal di la tiital ba nga koy génn <laughs> moo tax kon nag jaam yéen a ko gis Oustaz Al ah, moom leen am ah, fii si biir studio bi ah, jotaay la seeni programme 7949 214 7949 214 7949 214 call leen rek ngeen waxtaan ak Oustaz Al Mansouri Oustaz di nga gis tam yow xam nga am na laaj bu ma dencoon bëgg la ko wax mooy laaj nga ma nu ñu tànnee jabar man la tànnal ku yaru ko am diine mm-hmm. soxna mm-hmm. léegi yow nu ñu jëkkër seytaane jëkkër da ngay tànn góor joo xam ne dafa ragal yàlla gis nga nit su ragalee yàlla am na yu bari yoo xam ne du ko ñemee a def si man suma gis-gis waaw ah, euh, gis nga góor su ragalee yàlla xam lan la ko yàlla den euh, dente oo denkaane ah, di nga gis ne kooku dina bàyyi xel la bu baax a baax si lu muy lu muy mun a def te si lu moo def yëpp daf ko def si yoon ak si yar ak si teggin. léegi yow. Hmm. yow booy tànn. Hmm. Euh, Faat dama bëgg nag bu ñuy wax ñun ñëpp man yow ñu wax loo xam ne duñ gëm lay doon. yow booy tànn fi nekk. ah ustaas dama te <laughs> ah, wax ne doomu may dara waaye man du ma may dara. waaw léegi Fatou. ku ku ragal yàlla maanaam ku jaar mooy ku njar rek. Hmm. ku njar mooy ku njar ci ragal yàlla ci jikko ju rafet. léegi ku ku ragal yàlla te amut. ku ragal yàlla te amut ndax yow da nga ko tànn. ku ragal yàlla te amut ku amut lan. maanaam amut yow Fatou moo xee amut yéen ñay wax naan euh, garab bu la sutu du la may ker. waaw waay am ak. Euh, ñaaka boo am na ñoo xam ne boo ut see yaay ji du la laaj waaye bàjjen ji lay yónni ne ko laaj ko lu fu muy. waaw waay oustaz am ak ñaaka ñun bu ñuy juddu den fekk suñu yaay. papa yi ñu ngi sëy te amul dara waaye dañ toog nekk di stroke. loolu la loolu lu xam xam nga ne ñun. oustaz góor jigéen la la koy lal moo nekk struggle koo struggle rek doo mën a dundal lu bari ak moom foog ngeen nekka ah mayut la dara ngeen nekk di goti goti goti goti yow jigéen mi nga koo jàppale sax te ñiti duñ xam ne yaa ngi koo jàppale di def loolu ak di ko gis mu am everything fekk yow yaa koy solal yaa koy jox mu lekk yaa koy jox mu naan yaa koy even jox lu mooy dundalee ay waajuram te na fi benn wax waaw bi mu nekkee fii pour mu am jabar waaw naxari na fu mu dem ñu waaye oustaz wax nga ko su gars yi góor gisee góor bu ñaaw ni faatu ñëwuloo si góor bu ñaaw bu mel naka jigéen bu ñaaw bu mel ni faatu nga dem nag nga gis jigéen jur rafet bu mel ni ayda xees ba bugg a dee defal kawari ba mel ni lan nga ne ko kooku nga bugga jigéen bu nice tamit am na lu mu laaj kooku foog mu maintain kola kooku foog mu ah, maintain solom ak everything yow nag dëgg-dëgg yow sa yow so yow soo doon soo doon jooj man du ma ñëw attee si fa parti yow ni nga ko attee dëgg na de maanaam ku rafet daal dañ ko war teral loolu la góor ñi di bugga di parce que jigéen boo xam ne yaa ngi ko fekk every day mu ngi mu ngi defaru ba nice ah yaa ngi ko gis euh, saay bu nekk def laa ne damaa tukki damaa jënd yére bii damaa def lii damaa def lële kooku foog nga teral ko dama la bëgg a wax leen ah. kenn ñaawul kenn ñaawul te taar bu suur mm. taar bu suur bët ak xol mm. dafa jafe waaye soo déggee ñu ne kenn ñaaw dafa fekk ñu toppatoo borom waaye am na góor yoo xam ne dañ laa stressal stressal stressal oustaz ba yow jigéen ji doo mun a nekk yow voilà moo tax kon nag tànn bala waaye boo booy tànn taar. Hmm. bët bu set nga xeeb sa taaru jabar. Hmm. maa la wax loolu boobu kañ tey maa la ko may góor goo gis mu topp taar rek. Hmm. yonent bi la waxoon taari bët ya dàgg. ndeysaan. góor goo xam ne taar rek rek la topp. xam nga taar maandu. taar day day féedawee. ay taar maandu ñaawaay moo maandu. ndeysaan man ni ma mel nii. ah su ma nelawee gën a ñaaw. su ah. ma meree gën a ñaaw. su ustaas yow da nga ñaaw nii. waaw man kay wax nañ ma ko yoon. yéen fu mu nekk leen man na ustaas dafa ñaaw. non ñaawee gi du parce que. Ah. soo ñaawee te lambuloo xam nga comme am naa soxna. <laughs> Ah, kon nag dafa mel ni am neen koola si line bi koola bi dem na waaye dina wax technicien si rek ñu koola ñu koola boobu noonu ustaas li dafa neex. non xam nga tey. ki nga xam ne dafay tànnee taar. bët bu seen mu gis ko dàq jabaram ndaysan mu xeeb jabaram ndaysan waye ki nga xam dafa doylu mm-hmm. tané jikko mm-hmm. jikko ah jikko waaw tànnee jikko ju rafet rek yàlla gaag nangam nangam je koku bët bu set da fay gëna no jabaram parce que daf ko nopp ngir yàlla nopp ko ngir taar wa dama bëgg dina mëna mando ah. at góor tok xaar mandu. Ah, baña mando maandu dina mëna xaar ñaari at waaw waaw ñetti at waaw ñenenti at waaw juróomi at gis nga nit ñi bokkuñ. nit ñi. nit ñi ni leen yàlla bindee boobu dinañ ci ñëwaat ci beneen topic am na koo xam ne nii. ni ko yàlla bindee ni bindee ni mooñee bindinam nekkut ku bëgg sëy lu bari te it jël na jumtukaay yonent bi digle. ndeysaan koola koola ok koola. waaw na ngeen def. hello. waaw kooku Cissé la sant Ndambay la. suufee na de kàddu gi. ah moom dégguñ ko de. koola bi mun nga ñëw bañ a déglu euh, si euh, radio bi nga déglu ñu direct si sa lii hello koola. na ngeen def. waa jaama rek. na ngeen na nga si yéen a ngi si jaamu. waa ñu ngi si jaama fu mu nekk ñun ñu si guddi de. waaw man tam ñu dem si guddi man maa ngi wootee Jamani. oh ok fooy koole. Jamani. Jamani ok tur man maa ngi tudd Thierno. ok. Thierno Diallo. waaw Diallo Diéré. gis naa ko ci Thierno Diallo. maa ngi commenté si gannaaw sax si si si oh, live bi. oh ok gis nañ ko jërëjëf Thierno. waaw waxtaan bi neex na trop ba pare tamit xam naa dana eete ñu bari tamit nag. jërëjëf. moom c'était lu very interesting su kon mën ay continuer because ah booy yu bari ñu ba pare ñu ngi bàyyi ay soxna foofu noonu mooy. ma loolu daal da pare sometimes daf dee daf dee cokop de waaye daf dee bari de. ndeysaan de nekk bi di kurtu kurtu di jàpp di nekk waaye am na ñoo xam ne dañuy nekk suuf mm-hmm. di wax lu am ne ne lu lu dul noonu am na ñoo ne dañ dee ko xam ne daf leen bëggoon nag di leen muñal di leen def dara waaye sometimes si sax on nekk da nit yi sax on nit yi sax ñu nekk di kurtu ko suba bëgg a indi problème de diggante mm-hmm. loolu daf di am dëgg la jigéen moom su la buggee rek mooy yëpp wala loo ma tax sa ustal lu ma sa ut utal ku la bugga bu bugga mm-hmm. waaw because jigéen bu yaroo tamit nag ut ko tamit dafa important mm-hmm. koo nekkal tey tey Serekunda ñun dégg nañ fa nekk nañ fa soo déggee ki génn ku nekk ku nekk ku nekk tey tey nga ñëw Europe ne soo indee groupe ma seel la mm-hmm. waaye xamal ne kooku mooy loolu dafa xam ne yéeg yaa ngi fi rek mm-hmm. ba pare danga ko mën a def defal teraanga la moo tax de baax na sooy seet jabar moom soo demee ba ko ut te sa kilifa nga wax ak ñoom ba jox yoon wala ñuy wax ne diw kaari do doomam moom moo ñu gënal lool su nekkee bugg nga et puis am na rësi lu tax ñëwal ko waaye yow nga toore nga ne yow gis nga ko buggal ñoom ñu bugga bugguñ sa famille suñu buggee bugguñ sa faalewulu comme taa du dee du dee end du dee end lu rafet de du dee du dee du dee continué de dëgg la waaw ah, ba pare tam yëfi yëfi indi jigéen fii tamit loolu moom risque la risque bu rëy la nag bu waaji bu kool bu nekk france tam lu ma dëgg la de mm-hmm. because da nga day gis fi nga xam ne da ngay man am na ko am nañu man na Gambia laa xamante mm. ba jëkkëram mu ngi woon fii more than ten fifteen years mm. daf ko indi fi matuñ nekkuñ sa three months mm-hmm. ñooñu dama ko xam sax waaye mm-hmm. dafa toog rek indi jëkkër bi problème yu kenn xamul jox ma lii ma yónni lii jox ma ma nekkoon man oo naa ko bi waxaa ma ma nekkoon ne yow yaa ngi ñëw war a jàng war a intégré xam nga xam système bi force dégg làkk bi loolu mooy important sa jigéen mooy la fay luwaas fay seen dëkkuwaay dépense lekk everything yow yaa ngi solo yaa ngi doo gis mu rafet daf la danga ko jëndal daal la loolu lu nekk mm-hmm. plus yow mu jola pocket mooy tamit nga yónni sa famille wala yow sa bopp mu jola xaalis nga ciyee ma ne ko suma ji yoo tamit loolu daf seetaatal loolu bu baax mm-hmm. soo mu ñëwee ba yàlla def nga commencé liggéey yow sa boppa man ngay man nga defaloo sa waaye léegi nii su la mayee wasala waaye doo mën a toore nga ne ko bàyyi fa jox ma li jox ma yow doom parce que Europe bi fii kenn du amee kaas lu nekk kaat nga koy fay mu ne ñoom su demee soppi sax jigéen bi jëkkër bi di ko nangu jox xaalis ba mu fayal boppam moom carte relève ma ne ko waa ah, ah, loolu système bi la mm-hmm. because fii pour nga gis ko amee fii ifin five euros si kalpi kanaa kenn kenn waaye ñu nekk maa nga koy fay carte rek jeex na wala nga sa mobile bi sama am nañu dama ñun fii maa nga fay mobile bi rek daf lay génne sa account bi direct waaye pour nga jox ni xaalis nii moom daal problème yëpp la commencé mu yóbbu jëkkër bi ko mm-hmm. jël looya waaye fekk am na xaalis si suuf ñun ñoo ko dee woon yoon bono comme ça man bi lu waa ku nekk France mm-hmm. loolu leen de def soo dee ba am fii indi fa jabar fii sometimes moom dem xam système tuuti mu ànd ak fii ñaar ñetti nit ñoo ñu waxal ko naka la ñu woon ko yoon bi jeex na yow da ngay wàcc liggéey ñëw ñu la indi ay wax yu ko wax doo xam fa fu ma jógee mm-hmm. soo nii la problème bi fu mujjee mooy xam nga after jigéen dafa ñàkk liggéeyam xam nga am stress famille mi fa lay waxoon ne la ko xam nga soo ko yóbbee daf lay génn dafa stress de loo ma da léegi pour génn kenn mooy mooy mooy mujjës indi jabaram fii nii wala mooy loolu sometimes easiwul nag da ngay ñëw fii yow di di di try xam nga sometimes ñi ne génn nag ut yow góor bi rek la jik waaye soo indee sa jabar ak am nañu am ne mënuñu muñ jigéen am nañu am ne fu su tàng rek ñu commencé indi problème ndeysaan mm. waaw waaye da gis ne fii ñu bari da ngay gis suñ lekkee maalo wan si si week bi la mburu mburu leen dunda xam nga soo génnee suba jar bala nga ñëwaat ay five si ngoon te fii sometimes five mu ngi mel ni ten si guddi dëndem na soo mu ngi sedd tamit teg taw doo am joti tawgu tawgu bu am ne yëpp mu ngi nii time soo yaa ngi xalaat élève war a jogaat foo tri something si guddi foo yaa ngi a gën a kër xam nga so da ngay gis ne bi su ñëwee am na ñoo xam su ñu amul space boo da du la mën a because of da ngay ñëw fekk yaa ngi xalaat élève yaa a teel a génnaat xam nga war a bugg am sa jàmm sax noppale ko waaye da ngay gis ne wax yi moo tax da mën a def yeneen nii sax stress bi commencé nag problème bi commencé alright bro <laughs> jërëjëf jërëjëf kontaan nañ xalaat dama sol dinañ ko gën a yaatal bu ñëwaatee beneen programme ma ne ko Fatou Fatou Samb walaay laal nag Fatou Samb moo xam na fu may waaye jigéen ñi sama bi den day indi coono de ah bro bro man du ma nangu de ma ne ko du ma nangu de ak jigéenam waaw waaye gis naa jigéen ñoo xam ne ñu ngi dem Europe fu mu nekk nii seen góor yàlla ni yóbbu waaye mhm. ñooy jàppale seen góor ñi ñooy even advice seen góor ñi ku ñu ah, samp seen kër ñooy even advice seen góor ñi ku ñu jàppale seen waajur compter mom so compter ten mom, am nga 5 am na mom dé correct waaye sometimes tam am na ko ci gambia dëgg am na ku jikkoom rafet rek wa because am nga Gambia yu wa bu bul wax dara jala jéeri dina wax ak suma mbokki jigéen ñi ñuy dem lu def sun dam bi wut waye topic bi mo xam na ni ñu ko jekkali next week yeah inshallah allah insha allah dafa interesting nag dafa interesting man mo dama ko gis rek xam nga déggul leen déggul leen rek waye dafa neex nak do ma dama dara ko àggali bu soobee yàlla nga nga kontaan naa trop kontaan naa trop waxtaan bi rafet na yéen a jaara jéere jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan naa trop jërëjëf waaw oustaz jaata jaata moom mi ne why not me I was in Europe for six years without having any affairs with ladies ah mi ne six years yow yaa ko doon laajte de waaw six years ah su dee lu mu waddee am na. ah waaw macha allah. nañ ah, ma ne ko macha allah kudos to you. bañ a am dafay am. waaw dafay am kañ gëm naa loolu. waaye du ñëpp koy muñ. <laughs> ma ne ko du ñëpp a koy muñ métti na nag. Mm, waaw na waaye ku maandu rek la. Ah? ah waaw kon nag ah, dafa mel ni fu mu nekk nii suñ time bi jeex na tak oustaz mm. xaaral ma tàggatoo parce que yaa ma invite. waaw kon nag mbokk yi jërë ngeen jëf di leen wax bye bye faatu Samba la woon topic bi seen bas la. incha allah next week daañu ko continuer bu soobee yàlla bu ñu yàlla may fekke ak tal ngi leen di sant bu baax ci ànd bu rafet <coughs> bi ngeen àndoon ak ñun di ñaan jàmm yal na yàlla boole ñu defal jàmm ñun ñëpp yàlla yokk sutura a xéwal Assalamualaikum warahmatullahi taala Waalaikumsalam, salaam oustaz rek eh, di leen wax ne ñu subscribe suñ facebook page bi ak youtube bi ñu dem si youtube bi ñu subscribe Gambian Talents Promotion eh, saa su ne dina leen indil programme yu mel nii ngeen wax eh, li leen naxari programme bi nag every friday di ngeen ko mudi ko am si Gambian Talents TV mm-hmm. dem leen si youtube bi parce que dinañ ñëw foofu noonu indil leen yu mel nii dooleel Gambian Talents moy dooleel sen bopp dooleel askan bi Bye bye di jaajëfal technicien yi Moussa Diatta ak Aïda Kébé jërëjëf. jërëjëf macha allah.